nuyu na ma leen bokk auditeurs yi da lekis ba jukki leen li gën a fees seetu yëglekaay yi alxames ñaar fukki fan ci weeru juillet bokk na ci gën fees nag di campagne électorale yi ñu jëm nag élection yi ubbil enquête yéenekaay ne lépp bloqué nag dara demul processus électoral yi te fukki fan dong dese nag yéenekaay bi xëy fesal ci ay xëtam ne ponk yu bëri ak tolof tolof yi ka gàllankoor nag lépp lu ci mel ni carte électeur biométrie nga xam nag bokk nañ ci benn bokk yaakaar nangu li nga xam te ni nag moom moo di yi ko i ku nekk ne sa morom yaa wax maa la wax nag ma ni la yaa ne enquête yéene kaay ne njiitu réew mi woon nag te ñu folli ko di maître Wade nag di avertir ki xam te ni mooy Macky Sall nag ci lu jëm ci carte électeurs ci mbir boobu nag ba nar a wàcc ci tali bi nag nar am doxal ñaxtu nag saa ful ci xët bu njëkk nag ci Walf Fadjri quotidien yéene yéenekaay ne séddale bi ci carte électeurs yi nga xam te dafa tagga témbe nag bi nga xam te ne yenn ci askan yi nga xam te ne depuis décembre ba tey nag mën jot seen carte nag ba tax sax maître Wade nag nara wàccati ci terrain bi nag ne kaas nag tey loolu nag talaata gii ñu jëm nag la nara wàcc ci tali bi nag rassemblement ci préfecture bu Dakar nag wal fajiri quotidien ne ca Dagana sax la toll di teg pression ñi nga xam te ñoo di ëttu politique gi ak campagne bi nga xam te ne nag dafa raw aranu làmb wala ëttu football ba tey ak stade de Mbour nag ndax violence ba xeex beeg tullee maale bi lépp ci biir nag maître Wade nag ne na nguur gi jël ay matuwaayam président Macky Sall pare na ko jël na ay matuwaayam nag waaye tontu du forox nag tontu na ko ci la témoin yéen a kaay nag ñi di waa Yaakaar ne maître Wade nag ab saboteur la te dafa nar a li nga xam te ne moo di campagne électorale bi te a kaay ne ne na Wade dafa lànk kaare nag daal di koy bañ élimaanu jëwriñ gi nag di Mohamed Boun Abdallah Dionne di artu nag képp ku nar a yàq wala ngay saboté li nga xam te ni ni nag moo di mbir ma dalañ la teg ci yoon lépp ak nam ko waxee ak nam ko defee ak yeneen ci mbir bépp la solo yéene kaay xëy na fësal lu mu mel na waaye dina Abdallah Dionne la nag ndax ba mu demee Casamance ni ki démb nag fecc na fa fecc yu neex nag de yéene kaay bi ne nag la mu wan askan bi neex waa Casamance dañ koo teeru ak i fecc nag bu wàcc wan leen ne bi basul xamee l'observateur yéene kaay ne nag waa askan bee ko sof nag kii di Moussa Diallo di spécialiste na campagne bee waral loolu premier ministre est devenu entre temps sympathique waaye nag coppite nar naa am ci élection yi ñu dëgmal ak campagne bi nag libération kaay ne nag ministre de l'énergie nag moom moo nar a changé nar a nekk ministre pétrole ak gaz nag ma yokku ca këriñ soppi turam mu nekk holding mu des yeneen coppite yoo xam ne ni nag ministère yi danañ ko changé nag ma tukki war àdduna jël air daal di dellu siwaat dem ca France nag mi nga xam ne dafa xew jamono ji ak nit ñi nga xam ne dañoo amee feebar sida wala hépatite danañ mën a am soins funéraires nag ca Nigéria bi lu mat 23 personnes maanaam ñaar fukk ak ñetti dee ci benn taw bu bëree bëri yàq dëkk bi ravagé foofu nag ba ju toll ay kër ak ak Diao mi ci stade yéen kaay ne ci xëccoo bu métti la nekk ak waa Lazio nag ba waa dëkk la ba jël ko tegee ko ne di dege e, écarté ko nag ubbilee seen nopp ngeen déglooti ba ma waxati ngeen déggati lii ci Rufisque la xewee nag benn imaam la ak benn ibaadu nag ñoom ñoo xeex xeex bu metti nag xeex bi li ko waral nag moom moo di musifa nag ibaadu bi ne ko lii yëpp ay bidaa la nag imaam bi ne lu tax mu jël ko teg ko ne ay bidaa la nag looloo waral xeex bi nag xeex ba metti nag ba attaab bi ci yoon nag may daal di laaj lii diine la wala lu mu doon sunu diine santaale lii daw wasalaam